ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yàlla na jàmm nekk ci yéen ak yërmande yàlla sunu borom kontaan nañ ci yéen ci topp gi nga xam ni yéen a ngi koy topp seen seen préféré dañu tey jiital alaaji Muudu Siise mi nga xam ni ma nga fële ca marché Dior nekk ab grossiste la muy jaay am solo lool ci wàllu en gros ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax fële ca parcelle siyaar tamit njaase la ki nga xam ni daanaka la muy yëngu ci wàllu cosmétique ak la nga xam ne mooy ay yére yu rafet ak ay pantalon ki moyen loolee am na solo bu baax a baax gaayee na ca groupe WhatsApp ba ñoom Ousmane Gueye Ousmane Dramé euh, Serigne Sakhir Mbacke maam fa Serigne Fadilou Mbacke euh, ñoom ñëpp kenn comme ci man di doon ña nga lay béggee di kontaan ci yow bu baax a baax fàttewuñ Amadou Thiam ak ka nga xam ne mooy Birane Gueye ñu jéggulu ci loole nga xam ni mënul woon a ñàkk ci ay cant ak i ngërëm classico bi nga xam ni Barcelone koy waajal Barcelone moo ko gën a waaj que Real Madrid ndax Barcelone dafa jóge ci li nga xam ni mooy témboo boo xam ni daanaka dafa xaw a gàll guuse ay mbiram waaye nag teewul goneem yi def nan benn tàggatu boo xam ni tàggatu bu am solo la Jules am ma nga ca biir la nga xam ne mooy tàggatu ko mu mel ni kon défense bu Barcelone bi yaraax gi nga xam ne yaraaxoon na défense boobee dana dikkaat ci jàmm si Piqué nag moom ay mbiram dañ cee bëgg dikk ci lu yaatoo yaatu ndax gone yi nga xam ni ñooy supporters yi ñoom ñëpp maase nan Piqué na jóge Barcelone Piqué bu mënta jóge Barcelone na toog ci baa bi loolee moom lu ñuy bell ci réseaux sociaux yi nga xam ni ñoo ne ca Espagne nga xam ne daanaka ay capture d'écran yoo xam ni mi ngi am ci journal yi nga xam ni ñoo ëpp doole fële nga xam ni mooy catalan ya capture yooyee ña nga koy saaree moo tax ñu am ñi nekk ah, di ko wax entrainement boo xam ni am na solo waaye tamit bàyyi xel li nga xam ni mooy match bu mag bi nga xam ni moom la ñu war a am ak Real ah, waa Barça nag lenn muy seen bëgg-bëgg fi mu tool nii safi teg ko bët mooy jël championnat Espagne bi nga xam ni bu ko jëlee daanaka gars yi supporters yi du ñu ko mën a baal cent pour cent waaye dana xaw a tane yeneen information